bismillah yéen Sénégal xarawlu leen tuuti ma dellu marsiyaal sang bu yàlla bamba ak fa rasulullaay may yonen ba ma dellu ma Malick di ma siyaate xalifatub Seex Bamba si laayaati dina ko taarixal li wa ci laaya ak daraje baayam ba duna laay boole tag marsiya ndax mu may ma ci darajaam gëni lu weesu xayma cey yàlla cey sëriñ bi maa kawaar warkat bu mag wa war na fu bag daaru sangu muridi tey mag soobu jëm ci boroomam yàlla may mahbubu sëriñ Falilu dem na ku nekk lu mu dee ti jublu nay lu mu xam mbaalu ko mbaalu jablu xalsu sama liloo sëriñ Falilu fekk na tey baayam baayam ak magam jeweetal na joxe yàlla na seeru jëf ja fa jooy ko marsiyaal ko wax jaloore mu fi def semal na jëpp foore ma jëkk laa wax waxi Cheikh Moussa Ka tamar si yëpp maam Cerno duniyaa bu doon kër diyaale xayrul waraawa màkk duñ ko jaale waaye la yóbbu Ahmadul Makiyu dellu si yóbbu Ahmadul Bakiyu du bàyyi sun maam Cerno Ibrahimu kële di xaajimu kële Falliloo eh, bay wax ca way wa demu Falliloo loolaay lay waaw sëriñ Falliloo sëriñ Fallilu sëriñ Fallilu sëriñ Fallilu sëriñ Fallilu defe ni nu màggal wallaay xam naa ni demam gi mbasi la ku toog palaasam dal xam ni mbër la sëriñ Falliloo ngoonuk talaata ga fi mbër ma gonte fekk sëriñ bu mag ba lu bette fukki fan ak na rakaati gàmmu jël la fi mbër mu am xorom te saf mu adduna war nga nu te war sa bopp ci xam naa ni léegi sa rab alarba jee caaf sa sin jantam ba ni jeeca wam sa sin bisam Bari la sëriñ Fallilu sëriñ Fallilu sëriñ Fallilu gërëm gërëm gandaw lu biire xel ya gëlëm xol yëpp maase tàng rankoñ di tuuru cër yi wate ak watiiri def ay njooxe jëm ci gërëm yàlla bu mbiri sooxe murit xaatira ku tiijaan ñépp ko jooyo aka saa sultaan njaqare tabbi ca xol bu fugura sa ngir ak dem xal bi seetal mbiri njëleem yu mu yewoon faalu Tuuba jooy nañu ngir xam ni moo di sang baa fal li loo bisub keroog ko wuutu toogee jal barakam ju maandu tabe ak taaram ba moo ñëw moo ñëw taaw ba jox ko mbir ya waa Mbakke ñëpp teew di seede mbir ya waa kër Serigne Touba di ñëpp waaru busub keroog rankoñ yayul di tuuru keroog keroog Serigne Cheikh Mbacké Seyfu dina teewe na mbir ya jooja waay du cuune nee nañ bisub keroog lay xëy di woote waa kër gi déggu lool ndakate nar na joote wér na appel ku ne dem ci soxlaam sur yu laab di joxan ci ay kalaam bisub keroog dellu na warul naan léewéem bi sangu moo kee folil wanqaas ak garab yi def baar ci diggam ak jumaa jo bu dara dox fi saa digg ak Bamba la wax keroog ndëkkate lëm ne biir ba dal ni murid ngeen abal ma tuuti laaj la jol laaj la ko mu bañ dellu see ñu fekk mbër mu soonu ni cell mel ni dafa yëg ab coono la gàjjawoo jundum wilaayil xaalikuun gannaaw nañ fa mu gëyof mooy niin bisub keroog li xaw ji xeeti xar baax kenn mënu ko lim gëm ko doy naag baax Sëriñ Falilu falilu guddik alal balal koram fa tuuba fa penku am di musamak baayam ba fekkoon na kees dañu wutuloon yaaram ba def ko ca biir yóbbu ko tuuba ma nga mu dencoon dimbi moo ko gaar ca yooya fan ba kara koy waajal moom la fa def ko ca fa baayam rob ko fa penkum moo bari ndam ña di waajal mbër ma kenn man la xam silli baraw na xayma rakam sëriñ Abdul Ahad yaaram ba sëriñ saay bu Mbàkke may sànni damba ak subtu Bamba doomi am di Moustapha doomi sëriñ Basiru Mbàkke Moustapha waa kër sëriñ Afia ak Daaru Salaam wadarum wadaru teew doona malaam ànd ak yeneeni góor yu amay maxna waaye di leen lim day waral ab coono sëriñ fal di loo sëriñ sooy bu mbakke doomi Bamba moo ko saadix saadix na bamba cheikh moodu xabaan xaritam di waayam xolam ba jéen keroog ngir digg ni jaayam sub keroog mboolem lu doon malaaka yàlla yabal na leen ñu malaaka am jana yaa ngi sargal naa ko marhaban xawsul waraa mu xusi njëndi ya ba wey daaru salaam dikk rijaal yu ma rabbuna salaam salaam li dawaat ko yulli yëppay xel misik ba jib misik ba dal di sàllali sàllali sàllali sàllali sàllali sëriñ Fallu sëriñ Fallu bisu garaaw la am fa bi la am fa mbaaw mbaaw ginnaaw ginaaw ba ñuy defar barab musula am fa mbàkke ñëpp ngay ser njagam sëriñ Falilu su saadix ba moo génne Tuuba fekki say xiba ma dara du sax fu yebbu far wakilu di jaamu yàlla tey na ngoo góorgóorlu dara du sax yóbbu far wakiilu di jaamu yàlla tey nangu góorgóorlu ci ama wasasin la feeñ fa Tuuba am nu naa daaru la booba ca mooma at la mbër ma génne daaru sañ si ñëpp waaru aljuma tey kasu rajab la takku jundi lilaay dal ko mbër may bàkku nee keroog daam dani buñ ko nampal fee jant bi so buñ ko jox toqantal bisu keroog wax na ni rasuulu laay ñëw na fi ngir ju doom gi doona laay inni abdulaay Isa waxoon di mim na buusa mën a waxta mi mur moo mën a def keroog Sëriñ Falilu mën la akramul xalaaxu ba bis ba dellu see ñu dal di koy ngeen teewaay lamp ne liir bi dana toog ba bu mag ba moo ko tuddee faadilum mu yor ngeen ya doon faridun kaamilun Cheikh Bamba junjam du mooy ni faadilu ba noppi muy mafdoolu mbaa muy jaayilu mënulaam mënulaam bu kenn werenteeg baaxam walaay man xam naa ni sëriñ Falilu moo di fi yaaram wàllu ndeyam ba woo waa bu soobi tey sëriñ fu lañu bilaaw yoo bi